am internet Tacko TV dal leen ak jàmm gannaaw rek ba ñu dajalee suñuy xibaar xibaaru tey ji nag dañu koy dooree li nga xam ne rek moo di politique gannaaw ba ab député buy wuyoo ci turu Amy Ndiaye ma nga bokk nag ca benn Bokk Yaakaar yëkkati ay kàddu jëmale ki nga xam ne rek moo di Serigne Moustapha Sy di njiital PUR di doom ci Serigne Cheikh Tidiane Sy Al moom mi lay nag doon njiital ñi nga xam ne rek ñoo di moustarchidine yi Cheikh Tidiane Youm di partisan coalition Yewwi Askan Wi ca conférence de presse ba ñu doon amal altine ji moom mi lay nag ma ngay naqarlu kaddu ya nga xam ne rek député APR bi yëkkati na ko jëmale ko ci seen njiit moom mi lay ma ngay xam le ne rek Serigne Moustapha Sy ab homme de valeur la te du Macky Sall Antoine Félix Diome ñoo nii dafa jot nag ñoom ñi lay daal di arrêté seen provocation yi moom Cheikh Tidiane yu ma ngay wëy di xam le ne rek loolee bu dakkul ñoom ci jëmi boppam di ay taalibeem danañ ca jug te nag ku gis moustache dina yi nañu toll xam ne rek xajuñu ci bi lay ngóor ma ngay wëy di xam le ne réew mu Sénégal ki nga xam ne moo di seen sëriñ bu ñu bëggee rek li nga xam ne moo di jàmmim réew mi politique ba tey njiitum réew bu Sénégal di Macky Sall gannaaw ab daje ga mu dajeek association ak fédération yi nga xam ne rek ñooy yëngu ci wàllum jàngale daara yi ñoom ñi lay nag amal nañ fa ab waxtaan ca boobu lay daje jot nañ fa waxtaanee rek li nga xam ne moo jëm ci wàllum liberté wu seen natango yi nga xam ne rek jotoon nañ leen teg loxo ak it ay espace yi nga xam ne rek war nañ ko am ngir rek mën cee woyal seen mbay te it loolee yamu ca ñoom ñi lay ña ngay woy di àddu ca la nga xam ne rek mooy nañ leen ko jox muy seen dëkkuwaay ak ay subvention pour rek nekk ndongo daara yi ci réew mi daal di gën a mucc ayib moo njiitum réew bu Sénégal nag xamal na leen rek ni dina amal ab recensement la nga xam ne moom la ñu bëgg ngir ñu daal di ciy jóg nu mu gën a gaawee loolay waral nag mu daal di leen di déglu tolloog vingt pour cent ci li nga xam ne rek moo di xaalis yu njàngalekat yi loolay nag yemoog six milliards six cent millions ci sunuy koppar di rek ab financement bu jëm ci li nga xam ne moo di fourniture ndongo daara yi waaye it ay besoins yi nga xam ne rek war nañ leen ko cee satisfaire sphère politique ba tey ancien premier ministre di Aminata Touré gannaaw bu mu génnee ci APR di parti ba nga xam ne rek moo nekk ca mouvement présidentiel bu nekkee nii moom mi Touré nag daal dinay dem Touba ngir rek daje fa ak Serigne Mountakha di xalif général des Mourides ma ngay xam ne rek amal na fa ab ziar waaye it sekk na ak waxtaane ci li nga xam ne moo di situation actuelle bu réewum Sénégal gannaaw ba mu defee ab ziaram ba amal seen waxtaan ba pare moom mi lay nag ma ngay génn di jaajëfal ki nga xam ne rek moo di Serigne Mountakha gannaaw rek ba mu ko dalalee dalal bu nga xam ne rek neex na ko lool moom mi lay it ma ngi koy gërëm ca conseil nga xam ne daal dina ko koy jox joxe te it di ñaane ngir Serigne Mountakha daal di ñaan ci jàmmi réew mi ndax jamono juñ toll nii rek yooyee ñaan daal la ñu di gën a soxla ñaar fukki fan ak benn gannaaw ba ñu ko lakkee jant bi moom mi nag di borom Dakar matin di journaliste d'investigation Pape Alé Niang tey ji yemook nag fanweeri fan ci weeru novembre moom Pape Alé Niang ñu tegoon ko loxo ci ay divulgation de secret administratif mu ñu sukkandikoo ci Sénégal mi fësal bi lee xibaar Pape Ibrahima Thiam di njiital mouvement autre avenir moom mi lay ma ngay naqarlu mandat de dépôt ga nga xam ne rek def nañ ko kii di Pape Alé Niang li toll la ko ñaar fukki fan ak benn gannaaw bañ ko tegee loxo ak léegi ma ngay xam leen ne rek réew mi ñu toll nii moom kenn dund fi démocratie démocratie ndax rek liberté d'expression sax amatu fi loo wax rek ñu daal di lay tëj te loolee nag jëmalul ab réew kanam moom mi lay ma ngay woy di xam leen ni lenn rek mooy kàddoom gu mujj te moom lay ñaan fu mu toll muy libération immédiate bu journaliste bi ndax ñoom ngi lay nag daal dinañ koy soxla ngir mu dellu siwaat ci seeni loxo jëm ak yéen coupe du monde 2022 gannaaw rek seen qualification ci huitième de finale bi niki démb mook talaata ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre bi ñu nekk gannaaw ba Sénégal qualifié ca match ba mu doxoon ci digganteem ak Équateur mu jeexee ñaari ball ci benn Didier Drogba ak Salif Diawara ancien footballeur ñoom ñaan ñi nag gannaaw ba ñu fàttalikoo dégg bu Bouba Diop ñoom ñaan ñi nag ña ngay rafetlu rek match ya nga xam ne rek gaynde Aliou Cissé yi amal nañ ko ki démb ba jëlee ca ndam ñu ngay woy di xam leen ne rek ndam gi am nañ ko ñoom ci seen biir waaye jagleel nañ ko ki nga xam ne rek moo di Pape Bouba Diop kii di Didier gën gannaaw ba mu wonee mbégteem ci qualification bi tey rek ñaanal ki nga xam ne moo di Pape Bouba Diop fa mu nekk rek gënal ko loolu fi nga xam ne rek fa la jógee keneen ko àddu ci bilay kaane moom mi lay nag gannaaw ba mu amee ab blessure ba tax rek bokkul ci bilay mondial Sadio Mané di gaynde ak Aliou Cissé gannaaw rek ba ñu qualifié huitième de finale sans suñu numéro 10 bi moom mi nag ma ngay fësal mbégteem ci bilay qualification ma ngay xam le ne rek kontaan na loolu ci ni nga xam ne rek noonu la xale yi daal di fësalee seenum njàmbaar te it am na ci ñoom ñi lay confiance li ñu def ba qualifié bilay huitième de finale mën nañoo def noonu rek ba daal di àgg ca finale ndax rek moom Sadio Mané ma ngay xam le ne wóolu na jàmbaar yi nga xam ne rek ñoo nekk ci bilay terrain te it di leen ñaanal ndam ci match yi nga xam ne rek moom de finale ci coupe du monde bi Samuel Eto'o di ancien footballeur camerounais ma ngay addu li nga xam ne moo di diggante Sénégal ak Angleterre di match bi nga xam ne rek mooy suñu huitième de finale pour rek ñu qualifier mën a daal di dem quart de finale lay nag ma nga xam ne rek Angleterre musul nekk champion d'Europe te benn yoon la gagné coupe du monde ci àddunaam te loolee nag ma nga amee woon ca atum 1966 moom jiite fédération camerounaise de football bi ma ngay wéy ji xam leen ni rek match bi ñu dëgmal benn défenseur de classe mondiale la am te muy Kalidou Koulibaly moom mi nga xam ne rek moo ñu bégaloon ni ki démb indi but ba di jox ndam moom Samuel Eto'o ma ngay xam leen ni rek ba tey ci huitième de finale bi dox ci diggante Sénégal ak Angleterre favori ba daal daal dina koy jox équipe bu Sénégal ndax rek gis na ni nañu joué woon bi lay passé buñ ko continuer rek ndam moom dana daal di jóg te ci seen kaw lay daal di am Samba di ab tradipraticien ma nga xam leen ne rek mooy misi ci sëriñ si nga xam ne rek ñooy yëngu ci wàllum seet ak gisaane ndax rek ba match yu commencé ba léegi lépp lu ci wax sénégalais yi gis na ko te it lépp lu mu ci mënti def ba rek coupe bi daal di ñëwaat fii ci Sénégal dana ko ci def ma ngay ba ko ñooñee nag bëgguñu jàmmi Sénégal te it bëgguñu loolu ndam ndax rek soxla rek ak ñaanee commentaire ngir mu génnee la nga xam ne rek moo di ab single jagleel ko ñi nga xam ne ñoo di gaynde yi comme na mu ko defee woon ci Coupe d'Afrique bi moom nag daal dinay dégg ndigal loolu ba daal di génnee ab clip tuddee ko rek mën naa nekk boobu clip nag daal dina koy dugal sur YouTube ba rek view moom jamono juñ toll nii daal dina yéeg. people ba tey ñu jeexal ak yéen di jeex Kheucha di animateur ca 2STV moom mi lay nag gannaaw ba ñu ko laajee ca la nga xam ne rek mooy digganteem ak Racky Aïdara moom it di animatrice ca 2STV waaye it doonoon fi doonoon fi madame Guèye jamono juñ toll nii gannaaw ba mu divorcé ñu gis nag ab complicité ci digganteem ak di jeex Kheucha moom di jeex Kheucha nag daal dina cay indi ab leeral ma ngay xam le ne rek moo ko Racky Aïdara ci seen ndar la ñu xamante ñoo bokk seenub ndar te amul lenn lu mu koy xoolee lu dul bëtu rakk moom it di Racky daal di koy xoolee bëtu mag kon nag du lenn lu mën a am ci seen diggante te it lépp lu ci mënti xew jàmm ak salaam lay doon xam leen daal seen diggante boobu du lenn lu dul diggante frère ak sœur te noonu la ñu mës a àndee boobu lay complicité depuis ñu nekk xale ba léegi ca la am mbokki xarit yi ñu doon teewlu à travers Tacko TV li moo fi jotoon a rus comme ay xibaar di leen jox dig daje ba ëllëg tey leen di ñaan ngeen di abonné ci seen chaîne bi di Tacko TV tey rek activé li nga xam ne moo di cloche de notification bi ngir rek ngeen di mën a am suñu information en temps réel